ilana si call your mama hope to get your attention brought you flowers, hold on all the way from Africa. I chose him for you. Respect woman now, give him love. Give them him love. Don't be a problem, wait now, listen. Is it you, is it me that's creating problem, love? Is it you? No, no, a day, love. Life out, life out, life out, way, love. Life we gonna win, Lana. Is Is it you? Is it you? Is it you? No. Is it you? Is it you? Is Is it you? No. Is it you? No. Is it you? No. Someone would it in life now. you give me everything now. Mama, mama, we it you know Is it you know, no, no, novelty, Lana? Brought you flower, oh no. all the way from Equivox TV ñu ngi leen di ziar di leen màggal waaw di leen wax ne tey ñu ngi ci émission ndaanaan tey ñu dalal waxuma la ndaanaan mais suppa ndaanaan ndax man daf ma njëkk a yéem macha allah di bàyyi mu nu yokk euh, suñu mbokk internet Equivox TV. mu présenté ñu boppam wax ñu mooy kan wax ñu waxtaanee lu bëree bari bëri bëri ci carrière ñu bàyyi ko mu nuyoo d'abord avant tout. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp vraiment ci Sénégal ñu nekk fii ñu nekk bitim réew et puis euh, di rafetlu ci ñëw bi ci visite bi ndaxte y a pas mieux que que tu tu tu beaucoup de choses dans la vie et puis nit ñi bàyyi seen seen temps seen lépp surtout ce samedi qui important pour képp ku am njaboot. waaye ki Vox TV ñëw fii dans le cadre très professionnel et puis vraiment euh, seen approche bi et tout moi je suis fier de ça ndaxte lii au fait lii la Sénégal soxla parce que y a des jeunes qui sont innovés qui sont très talentueux avec vraiment du matériel à haut niveau. Euh, moi qui travaille dans ce secteur, je les ai vus venir la maison. Vraiment, vraiment j'étais content de les recevoir. Mais avant tout, de remercier Semeni Gaïdi, Narte Mom Boulouldara. Euh, c'est un, c'est, qui mom, qui musique, famille bourrée, le, la le dieu, c'est ma maman, Soleil. donc euh, déjà nee nañ balaa ngay tàmbali dara tàmbali ko sa biir kër comme il l'a fait avant de poursuivre cette émission il est venu me voir ce matin on avait une séance d'entraînement ce matin mu ne ma saa il faut il faut qu'on fasse cette émission et puis nga wone un peu ce que tu fais la musique je pense que c'est important et puis voilà donc je suis là je suis dispo et à votre disposition euh, man nag je m'appelle Pape Koundoul ñi ma xam ci dans le cadre de basket donc je suis un ancien basketteur et qui mais durant mon passage la musique s'est rattrapée un peu avec man euh, ndaxte ñu bëri xamuñ ne man rue 25 laa màggee mooy ngéwal yom riche ñaar yoom ok Medina. waay euh, grand béykat et puis dama doon ànd ku ñu tuddee Ama Diop Ama Diop ak Atoumane euh, ku leen xam seen papa moo nekkoon directeur conservatoire Abdourahmane Diop. donc ñun on n'était pas musicien devant lui mais on on était entouré de de très bons musiciens sur la rue 25 et vraiment jàng ki ñu yore ci àdduna bi. learning has two phases. Donc, il y a des gens qui, qui, qui, perçoivent beaucoup de choses visuellement. Et au cours du temps, ils développent une perception de, de, de pratique. Ils pratiquent en place. Donc, tout ça, la musique, euh, c'est venu de la rue 25. Donc, je suis beaucoup Medina. waaw loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que suñ déggee si biir wax mooy yow ci ndaw ñi nga gën a basé wu parce que dañ naan ndaw ñi ñoom ñoo yor yori réew mi ëllëg te loolu c'est c'est c'est très important te loolu dama la ci féliciter di la ci encourager bu baax a baax a baax a baax ndax ndax musique bi mun naa ne dafa dafa saturé mm-hmm. te bëri na jeune talent yoo xamante ne bëgg nañ mais seen seen loxo jotul ginnaaw mm-hmm. te ñu comme ni nga ko waxee yaa ngi leen di jàppale projet yi lan nga xalaat lan ak lan ak lan ak lan moo ne ci ci kanam ay projet yoo xamante ne ay projet Pape Koundoul la ci yoo xam ne ñu ngi koy xaar donc en ce moment ce qu'on dans les centres culturels et parce que mënuñu dem géejawaay teg fa suñu bagage ni on va faire des choses loolu tooñ la tudd donc ce qu'on va faire on va approcher on va nous approcher un peu des des gars qui sont qui sont dans le local les gars qui sont un peu dans les secteurs des gars qui s'y connaissent bien par exemple là on travaille avec Pikine avec Matador et tout euh, y Fou Malade à qui on a parlé aussi donc ce qu'on veut faire pour projet surtout l'été pendant que les écoles sont Donc, comment on peut approcher ces gars, amener ce qu'on a, une bonne structure, et puis utiliser ce qu'ils ont pour créer un peu système pour ñi fa nekk ils peuvent bénéficier de quelque chose qui est un peu différent parce que de temps en temps il faut amener de la différence moom li may wax gars su yàlla bëggoon ñëpp ñu niroo dëkk bu doy waar lay doon ñëpp ñu niroo ci dëkk moom lu yéeme lay doon donc loolu déjà am na quelque chose qui est différent innovation bu ñu ko daw souvent tu vas dans un secteur tu présentes quelque chose quand ça dépasse un peu leur leur idéologie rek un peu rek dañuy daw leur idée de de structure non il faut il faut embrasser quelque chose de nouveau soo xamul tu laisses quelqu'un qui maîtrise ça jàngal la pour bu demee nga jëfandikoo ko parce que loolu lañ bëgg donc l'été on va essayer de faire beaucoup de de jeunes reçois beaucoup d'artistes like xale yi fii ñëw par semaine yi répéter on travaille leur voix on travaille comment se présenter comment parler parce que y a on voit beaucoup de gens qui qui savent même pas parler à la télé et et, et loolu ça ça donne une idée à la jeunesse que nii la ñu war a waxee télé alors que c'est pas ça donc ñun aux États-Unis même bu ñuy jouer match collège Chaque jeudi, il y a une dame de communication qui vient nous, prendre en charge. c'est comme ça que tu réponds aux questions. C'est comme ça tu dois te présenter. C'est comme ça que tu dois te tenir. C'est des habitudes, mannerism, c'est it's very important in life. So on le fait. Et là, je pense que on va apprendre à la jeunesse de bonnes habitudes. Pas nous talk, tegler. toi ñu toog di xam nga sànni loxo yi tout ça mais juste qu'ils apprennent à une une parce que kuy wax télé xamoo ku lay seetaan te ki lay seetaan daf lay wekkee li nga wone fi nga dëkk donc bu ñu gisee un sénégalais qui est à la télé qui sait pas parler qui insulte ou jette des choses et des comme ça ben ils diront que ben attends sénégalais bi nii lañ mel donc c'est pas le cas donc l'image du Sénégal doit rester à toute personne qui passe à la télé qu'on sache comment se présenter et ce qu'on dit ça peut être quelque chose de très détrimental à la jeunesse qu'on fasse attention à la communication gars ki ci ñoo ko déggandoo dëgg ngeen conseil boobu noonu kon jeunes yi bu baax a baax a baax jege leen mag ñi ngir sàkku xam-xam pour man artiste du rëy ci sama gis-gis artiste bu ne war nga mën a jege ku ne bul xeeb kenn koo xalaat na tey mën nga fa jëlee njëriñ waaw euh, demal nga jege ko nga gëstu bu baax a baax a baax yan conseil yi ngay jox bu baax a baax artistes yu ndaw yi ak euh, boo ñu nee may tuuti parce que du ñàkk jafe-jafe yan jafe-jafe nga jot a dund ci ci ci ci musique bi ak nan nga gisee musique Sénégal. bon le conseil que je vais donner à la jeunesse avant tout c'est il faut avoir des fois le le courage c'est pas parce que artiste bi lii lay def tout le monde doit le faire et comme je le dis souvent moi j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes je travaille avec Papa Thione j'ai eu à parler avec Wally et tout et fii il y a beaucoup de gars qui sont passés ici li may wax souvent rek mooy le Sénégal c'est un pays qui très saturé tey jii bu ñu demee ba dans le monde entier les Nigériens ont pris le monde de la musique complètement c'est parce qu'ils ont imposé leur culture et comme l'a di Wally wax na ko keroog télé quand quelqu'un sort tout le pays doit contribuer à son support mu dem keneen dem keneen dem lu ñu tuddee de cycle de cycle maanaam tey jii su ma la amee dama lay dimbali nga dimbali keneen au fait tout un cycle du Sénégal va réussir donc les jeunes il faut être confiant de ce bu fet boo leen di demee bu leen essayer ñëw rek laaj li ñëpp yor commencez petit à petit faites des petits pas bu ñëw ne tey amoo xaalis mais da ngay dem nga leb ñëpp def benn ngandam seen après bu conseil bi jeexee ngay làqatu nit ñi ngay daw fu ne pour payer tes dettes pourquoi pourquoi le faire bul bañ dem def featuring ak kenn ne te dis pas que Sénégal y a moins de featuring je sais pas pourquoi dans les grands pays les gens le temps tout le temps parce que c'est important que yow ki ki mën yóbbaale la quand tu, tu es une image et puis voilà nan ah ce gosse là il pas mal pourtant waa kii bi nga ko jàppale mu dem il faut pas avoir peur d'approcher les artistes artistes yi ñu gis naan du ñu ñëw suñu kër rek du ñu def lii lii c'est pas ça parce que les gens ne tapent pas la porte c'est à cause ça ils ouvrent pas la porte mais allez allez les je vous dis que nit ñi méttiwuñu il faut aller les troisièmement une innovation indil lu bees bul ñëw rek ne ñëpp nii la ñuy jouer damay def lii ñëpp dañuy mbalax damay mbalax non même booy mbalax it amène quelque chose de nouveau quelque chose qui est innovant quelque chose qui tape à l'oreille gis nga liy dox ci ci àdduna bi féete recherche xoolal liy dox et de pas de limiter mais essayer de voir quelque chose comment tu peux faire en tant que jeune artiste pour pour y aller le conseil maintenant que que je donne aux artistes sénégalais mag ñëpp et et les difficultés que j'ai vues ici les artistes du Sénégal amuñu matériel et le premier conseil que je soo ooyee bassiste mu ñëw jouer le bassiste lan lay indi guitare basse. nga woo pianiste muy ñëw la la indi. piano nga woo woykat mu ñëw loxo neen. te xamul ne moom ci boppam gànnaay gim gën a war a yor muy micro. parce que c'est ça qui va I mean protéger sa voix et lui donner une élévation en tant qu'artiste moom kese. et loolu je pense que chaque artiste du Sénégal doit essayer de conserver un micro deuxièmement pour sa santé temps yi Covid ñëwee c'était c'était grave nga jël sa micro partager ko keneen parce que les gens ils chantent ils crachent il y a certains ils, ils jettent beaucoup de choses sur le micro tu dois le prendre le c'était pas un truc sanitaire mm-hmm. donc les artistes le premier conseil que je vous donne sauvez-vous de l'argent denc leen xaalis jaayal téléphone bi dem jënd benn micro saa yooyu dem c'est ton micro c'est ton micro et puis micro boo gën a tàmm tu tu tu vas bien tu vas bien t'exprimer dessus bi may ñëw tout le temps damay gis ay artistes yu mag yu amul micro wala ñu dem seen sono bi baaxul wala mënuñu am sono bu mag kon nu ma déggee sa biir wax yow danga am sa sono bu mag boo xamante ne ni mu ngi disponible. oui on a une sonorisation qu'on pas bu mag mais que qui est qui, qui peut faire des événements. Et c'est la disponibilité de beaucoup de gars s'ils viennent nous approcher. On a des micros, on a, des, tout ce qu'on peut avoir sur une scène. On a de la lumière, on a la structure, on a une, des façades et tout. Et vraiment des instruments aussi. S'il y a des groupes qui veulent venir sans instruments, on a des, trucs, des guitares à haut piano, tout ce qu'ils ont besoin pour constituer la musique, des guitares basses et tout. Et vraiment des micros à haut niveau, hein, parce que j'ai eu à travailler avec des artistes avec qui on a échangé et construit des micros pour eux. Et ils ont vu la satisfaction sur la scène automatiquement dès qu'ils ont perçu ces micros-là. Donc je pense qu'avec AK Music, non seulement une, salle d'enregistrement, Mais aussi, on a de la sono, on peut se déplacer. Il y a les voitures qui sont disponibles pour déplacer la sono. Pour le basket et la musique, on est, on est, on est dispo pour aider les gens. Et eh, à, à, à, il doit faire le minimum quand même pour. Parce que Sénégal, mon partenariat. Mon partenariat, c'est un pourcentage. C'est 40, 60, 30, 70. Donc le partenariat, on est là, on, est, on veut aider la jeunesse. Moi, la jeunesse, je veux investir vers la jeunesse loolu daal moo ma tax a jóg et je vais on va essayer de continuer en staff en groupe pour continuer ce développement incha allah. loolu dina tax comme jeunesse bi ndax man ci jeunesse bi laa bokk. ci début musique bi nan nga ci duggee ak lan moo la euh, motiver ba nga dugg ci musique. boo en fait quand j'étais à l'école euh, man euh, lycée Lamine Gueye laa jàngee donc euh, dama dama jëloon l'anglais j'aimais bien l'anglais et au fait j'ai appris. a chante par rapport aux chansons américaines, like Boys to Men, Mariah Carey, and you know, Jay-Z et tout ça. Donc, au cours du temps, euh, de mon way, je chantais tout le temps. Faut moi je chantais, je chantais. Et puis, j'ai pas tellement, j'en ai pas tellement profité au Sénégal. J'étais animateur, j'étais DJ, j'ai rapatagé et tout ça. Même ni nek terrain, j'ai rapatagé, les papes, souvent, ils disent DJ et tout. Donc, après ça, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai eu une bourse pour aller continuer les études de basket. C'est maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, qu'un ma watch, c'est une classe musique et j'ai vu beaucoup, une salle avec beaucoup de pianos. Je suis rentré. Donc, ma talk du way, du way, du way, du way. Et un mm, ami me ça, et tu, bat, mais c'est pas si mal que ça. Peut-être que tu peux essayer ça. Mon non, laisse tomber. Déjà, il a ma carrière de basket que je voulais poursuivre. Et après, j'ai acheté une guitare. Après la guitare, c'est là où j'ai commencé vraiment à poursuivre les choses et écrire des sons. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas, j'ai pas, pas arrêté. Et puis, j'ai voyagé un peu dans le monde à cause du basket. Donc, j'ai eu à voir des performances, côtoyer des artistes, côtoyer des centres d'enregistrement de, et tout, et du studio. Et euh, comme j'étais aussi euh, un batteur de djembé, donc. Euh, parce que bu ma déggee sa biir wax comme ni nga koy waxee dafa mel ni yemoo ci ci ci ci woy kese. non waaw parce que buggoon naa xam tamit euh, ñaata instrument ngay joué. parce que d'habitude damay dégg ñu naan la euh, l'homme orchestral. te loolu man jaaxal na ma lool lool lool lool lool orchestre jaaxal na ma trop. ndax li ma gis fii tey man yéem na ma xaw ma ku mu yéemul man yéem na ma. Euh, de de de rassembler des gens comme tu peux le faire au et tout des des répétitions des enregistrements parce que beaucoup de gens la musique tant qu'ils voient pas la voie du succès il y a pas tellement de sacrifices les artistes qui sont rentrés à 100 pour cent dem parce que loolu la ñu am quoi les gens qui travaillent et sont dans les orchestres ils prévoient à travailler tout seul. Donc, man, c'est là où c'est venu. Donc, ce qui m'a motivé, c'était le voir Ed Sheeran. I found a love. Donc, les chanteurs, donc, je voyais qu'il jouait tout seul. Donc, je me suis dit, djembe la Après, j'ai pris le piano, guitare, mon après, tama. Et je suis pianiste en même temps. Je, je, du piano. Donc, il faut que un instrument, la tambalé. Euh, et, et, ça m'a permis de faire une construction d'orchestre au fait tout seul. Parce qu'au fait, comme je voyageais tout le temps je pouvais pas dire aux gens nañ dem France nañ dem fii nañ dem fee nañ dem Afrique nañ jouer donc j'avais une pédale et je suis un gars de technologie donc si tu comprends bien la technologie sur les wave sound que, que vous voyez ici sur la pédale donc c'est les mêmes sons en quatre barres qui se répètent pendant tout ton donc tout ce que tu fais tu crées des des tracks ok enregistre et puis voilà tu mets d'autres la basse et te su ma déggee sa biir wax dafa mel ni yow DJ nga njëkkee ndax yaa ngi naan. sa temps ndaw ñu ngi lay naan DJ DJ DJ DJ xanaa da nga jaar ci ci DJ ñi. waaw xam nga nag euh, temps Sénégal yu yàgg yi maintenant les DJ la ki sont à Dakar ils ont très grand privilège d'avoir des DJ turntable controller là tu peux contrôler mais ñun bi ñu animé on utilisait les cassettes. Et il y a récemment, ça, on, a, on parce qu'on voulait organiser un, euh, une soirée rétro yi xam comment ils faisaient à mixer les cassettes Les gens ne le savent pas. mais un gars qui m'a motivé c' était Aladji Man Aladji Man ñu bëri xamuñu un DJ RK temps et police quatrième fi mu RK la tuddoon. ok c' qui était le DJ après on a côtoyé par exemple Ama Diop qui avait un très grand niveau de matos de matériel euh, sonorique et tout. et on a commencé à ñun nag c' le sport on l'a utilisé dans les rap et tout et on sortait le soir et tout et c' là où le nom DJ est venu parce américain, c'est une façon de vivre et tout. Donc j'amenais ça dans le terrain, comment je m'habillais, comment je jouais et tout au basket. Et puis je pensais que c'était une partie qui, qui, fournissait un peu de, de love dans la musique, des deux côtés de love pour le basket et love pour la musique. ok c'est là où ça, ça Parce que ni ma déggee sa biir wax mu ngi mel ni da ngay da nga doon def basket. te basket bi euh, defe naa ne moom kenn du ci laam-laamee sa jaar-jaar. ci Sénégal ak ci états lan ngay def pour sa dëkk ci ci côté basket bi ak ci côté musique bi. donc en ce moment bon très bonne question donc euh, des questions très pertinentes de de mon temps de mon temps là. donc voilà pour le basket man ci basket lañ ma xamee Sénégal donc j'ai joué au basket j'ai joué au Jaraaf bi ma jógee Jaraaf j'ai eu mon premier contrat en sortie c'était euh, en Côte d'Ivoire où on a gagné les deux championnats donc euh, je suis revenu au Sénégal après vers les 98 j'ai eu la chance de rencontrer Babacar Sy donc su ma demee États-Unis tey yàlla ak Babacar si tax donc giving back donc je remercie Babacar fu ma nekk ci àdduna et je suis allé aux États-Unis sur le camp de six personnes je pense que man maa ci amoon visa je suis allé aux États-Unis fa laa joué Cleveland State laa joué j'ai je suis passé par Highland c'est là où j'ai eu mon premier diplôme j'ai fini mon master en Cleveland State et de là-bas les coachs ils ont que j'avais un, leadership de jusqu'à deux ans, et je, je, je, suis dans le basket. J'ai coaché en première division. Et je pense qu'il y avait même un ratio qui disait l'un des Af coachs africains qui a fait le parcours de high school en collège, j'en faisais partie. Je pense que Et le basket, c'est quelque chose qui m'a tout donné. Et en retour, pour redonner au basket, modèle aussi Sénégal. Euh, j'ai créé une académie euh, qui s'appelle Face of Sénégal. Face comme fondamental, A comme athlétique, C comme culture et E comme éducation. Parce que non seulement j'aime la culture et j'aime le sport, et j'avais pensé que investir. Il y a beaucoup de gos de l'équipe nationale qui sont passés par l'académie. Teiji, on a une académie de 100 gosses qui sont un peu partout, qui viennent un peu partout. Et tout ce qu'on ce qu'on veut faire, chance am qu'on multiplie ces, ces chances-là pour les jeunes du Sénégal. Xalé yi gëna mëna dem jang parce que man for naa ci wéyu béy mm-hmm. ñu ne basketteurs yu bëri fii jaar nañ ci sa loxo. Mm-hmm. loolu da nga koy confirmer wala parce que dégg naa ñu bëri jaar nañ ci sa loxo tey. loolu moom ay affaire xam nga man boo seetloo depuis longtemps je m'affiche sur ce que je euh, ñu bëri jaar nañ sama loxo jaaruñ sama loxo euh, c'est important de dire c'est pas important li am solo mooy euh, tey jii ku ci ne te nekk coach nekk biir Sénégal. le but c'est d'aider les jeunes ñu dem parce que xale bu ñu gën a dimbali mu dem c'est le Sénégal qui en profite c'est l'équipe nationale qui en profite tey jii boo xoolee équipe nationale même la constitution de l'équipe est basée par des jeunes qui viennent des académies un peu différentes du Sénégal donc loolu dañ ci war a delluwaat jàppale académies en plus les académies qui sont un peu éparpillées au Sénégal au fait c'est les premiers formateurs de ces gosses là qui dem demoo ndax man yàlla tax nga dem parce que gis nañ ko am kayit dem ñi bañ gis ko amul kayit ñi may ko mu dem donc affaire tukki moom dañ ko bàyyi ci loxol yàlla tout ce qu'on doit faire c'est continuer d'expandre un peu connaissance li ñu jàng indi ko suñu réew et puis qu'on privilège pas les jeunes de cette information parce que c'est important que chaque gosse bénéficie de d'une intelligence de quelqu'un képp ku dem ñibbi si wala ko nekk fii xale mu ngi lay xaar les enfants ont pour dellu siwaat maintenant ci académie bi comme j'aime la musique d'Elosina, pourquoi pas créer une académie de musique On l'appelle 3 x 3 x 20, 3 by 3 by 20. Moi, je suis sorti de ce programme aux States. Donc, ce qu'on a fait, on l'a juste amené au Sénégal. Parce que moi, je suis un artiste qui a amené ay playback gëmuma woy ci wayu jàmbur. parce que tey jii doo fekk lu day ni Youssou Ndour nga bind woyam ma bind woyam pendant des années performer ko redressé ko pendant des années yow nga ñëw ne yaa ko dàq woy loolu pour man c'est am na une partie positive une partie négative. Euh, que jusque man gëmuma loolu man li ma gëm mooy artiste moom fii ak micro ngi tàkk rek tu dois chanter loolu lañ tuddee live live so pas de lip sync loolu dama koy dëggal ndax déjà gis nañ ñu bëri fii Sénégal ñu bari bari bëri lu leen taal mooy cover mm-hmm. maanaam jëlaat son wu jàmbur reprendre ko joué waat ko ba ñu bëri bari bari bari mooy loolu d'habitude pour man sama gis-gis dañuy dem ba waaw fàtte sax ñoom seen war rar nañu am répertoire Donc, wow. chez, Académie, j'ai eu la chance d'approcher beaucoup de personnes. Donc, Académie, souvent, on jouait au centre culturel Blaise Senghor. Donc, ce qu'on fait, 3 fois 3 fois 20, 3 sons, 3 originaux en 20 minutes. Donc, on te laisse vraiment indi ce son ou lequel joue, que tu chantes live. Avec des, avec des micros haut niveau. Parce que j'ai amené beaucoup de micros, une très grande sono, podium, lumière. Lolo, je, je l'installe chaque vendredi et des gosses Ça te permettra de savoir comment on chante sur la scène, on forme les jeunes, comment tenir un micro sans fil, comment les présenter en face des retours, comment tu dois élever ta voix par rapport au micro, fan le plan de récepteur bi nek ci micro bi. Et lolu c'est important parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui connaissent pas euh, la technicalité qui, est sur la scène et lolu luñ ci gëna jàng rek ça va aider les jeunes. Amna artistes yu fa ñew, euh, ils sont euh, que des covers, ñu ñëw def leen live, ils ont pas pu survivre là Et c'était dommage, c'est à la fin qu'ils ont continué de travailler. Ils n'étaient pas forts en live, maintenant ils sont très forts en live. Ils ont fait des disques d'or, mais on a eu de très bons passages là-bas. Et vraiment, on en est fiers et on continue de travailler avec les jeunes un peu partout. On prévoit de faire beaucoup de choses en utilisant le sport et la musique comme source de motivation pour la jeunesse, pour les occuper. Nous avons agression bi parce que si les jeunes sont occupés comme comme dans comme le font d'autres pays je pense que c'est c'est une utilité dans le secteur où ils habitent dina gën deuxièmement les gosses qu'on développe pour ñu tukki tey jii bu ñu génnee tey nit mu tukki bu ñibbisee moom mooy tabax hôpitaux yi mooy tabax bureaux yi mooy tabax jàkka yi seen secteur donc si on continue de développer les jeunes de chaque secteur je pense que le Sénégal peut bénéficier de de beaucoup de changements sans qu'il soit même euh, l'inculpation de, de de du gouvernement. ku soxla. Pape ci sono bi ci ci ci ci ci ci boo bu bëggee événement nga ñëw jouer ko fan lañu la mën a rejoindre et sur Instagram sur les deux sur les deux secteurs donc je suis dispo tout le temps je suis dessus sur WhatsApp aussi et dès que j'ai une clarité de ce que tu veux faire tu pourras avoir mon numéro directement pour faire euh, des des tout donc Amadou Koundoul mooy Facebook bi Amadou Koundoul mooy Instagram bi. ou bien tu, tu tapes juste Face of Sénégal, je, je, peux être approché sur les deux euh, plateaux et vraiment faire des demandes dessus, soit qu'on vienne là-bas faire l'académie ou un camp de basket, ou bien louer la sonorisation, ou bien louer le matériel de vidéo. On a des drones et tout, on peut faire du dronage du secteur des, des, des, des champs et tout. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est fait par AK Design Amadou Koundoul et le staff, tous les sacs qu'on donne à la jeunesse, tous les logos, tout, on peut tout faire ici. Donc on a la capacité de faire beaucoup de choses et produire une satisfaction pour la jeunesse. Et aussi, on construit des terrains de basket. On a construit pas mal de terrains et récemment, le, le projet qu'on avait fini, c'était le projet de Fatkine Ndiaye Pulse Africa, que je donne un grand big up. Fatkine, c'est la légende, je pense, du Sénégal, Hall of Fame, qui évolue en France, qui fait des choses énormes pour ce pays. Et vraiment, et il y en a d'autres de passage, de remercier euh, mes amis, de remercier mon di remercier Diagne qui est là depuis le début mosul bàyyi di remercier Bamba di remercier Ibrahima Touré di remercier vraiment Babacar Touré di remercier Cheikh Fara Marène di le remercier Petit Ramou ah cousin vraiment j'ai un staff qui est fabuleux j'ai un staff qui est fabuleux et avant da ngay remercier ñëw ñëpp da ngay remercier sa waa kër et je vous remercie pour le passage EK Musique EK Design Face of Sénégal vraiment peace out merci waaw di leen jaajëfal comme niñ koy faral di defee di leen ko jox dig daje ah ba beneen yoon incha allah ak beneen ndaanaan ñu bàyyi leen suppa ndaanaan bi tëjal ñu ak benn morceau bu nice di leen jox rendez-vous bientôt xaar leen ko. Baby, now, mama. I want you on my mind. It's like, take them, gotta stick them. Oh, baby, now, you can give me this. I want you on my mind. Oh, baby, now, you can give me this. Oh, baby. بالدين الله من موجود منيع بالعالم من مين نقل نتيلا من مين نقل فيه الله ليلة دلة دلة القوة تتبع سيدنا بكم سيدنا like the mama take you to heart, the same place you be. I've been missing you, getting for you, then you come back in this life. I need you to be rewound, you come back, and take them back now. See this life, mama, you everything, the American dream. See this life, you the heart for me, this life. You take them back, this life. Heart for me, this life. Baby Rock Steve in the house. Thank you for coming out tonight. opportunity for me to share the story, share my story. It's like, oh baby, then can you be say? Oh baby, now can you dance? Oh baby, no, no, no, oh, oh. You be still more, wow. Get no sin now.